asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, ñu ngi leen di siyaar bu baax di leen jaajëfal leen ñu saxoo di suivre seen chaîne euh, TMP di seen premier chaîne leader euh, fii ci Sénégal tey nag dañuy dalal gan gu mag a mag mag mag mag koo xam ne yàlla ko may lool lool ci wàllub lasdar mbirub baatin bu rëy rëy rëy ñu gën ko xam ci Cheikh Mouhamadul Mbaye Cheikh Mouhamadul Mbaye ñu ngi leen nuyu. waaleykum salaam wa rahmatullah ñu ngi leen di fay Cheikh Mouhamad Diouf ñu ngi leen di nayu di nayu askanu Sénégal yëpp fu waay mën a nekk di seetaan seen bi nga xam ne mooy TMP Events ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu biir réew ak bitim réew ñëpp diaspora bi yëpp ñu ngi leen di nayu di wax ne waaleykum salaam wa rahmatullah waaw waaw jërëjëf sëñ euh, Mouhamadou mbay waa tey nag euh, dañoo bëggoon xam kan mooy Cheikh Mouhamadou Mbaye. Euh, Cheikh Mouhamad Mbaye buñ ko bëggee xam ci gàttal mën nañu wax ne euh, mu ngi fekk baax fële Saalum dëkk bu ñuy wax Pakala Pakala nag benn dëkk la boo xam ne mu ngi nekk fële sa kungel jege na ko vingt cinq kilomètres ak kungel la ci frontière Gambie bi la nekk foofu lañ cosaanoo mooy seen cosaan seen waajuru jigéen ak seen juru góor yëpp fa la nekk euh, ñi cosaanoo foofu seen juru góor di sëriñ daara di jàngalekatu alxuraan di ko xamne wa waa ñu bari xam nañ ko ñi al alxaaji Cheikh Mbay euh, ñi yaro fofu juddo fa mu jangal ñi bañ mate dal jang mu jangal ñi alquran bim ñi jangale bañ yewu ci alquran mu genn ñi ñi dam jangi bam ñi génnee yóbbu ñi Kawlax ñi dam jangi fofu lañ al alquran ba pare dugg ci xam-xam jang fa xam-xam bañ pare ñi dooro dugg école arabe euh, jang ci école arabe ba am ci ay diplôme Euh, door fa jóge nag dugg ci maydaanu lasraar di ko gëstu di ci gëstu ba yàlla may ñi ci xamal ñi ci lim ñi ci xamal euh, ñi continuer ñëw fii dakaar continuer ci liggéey boobu di gëstu ci lasraar fekk ne dañ ko donn waaye ñi jàng ko ba xam ko maîtriser ko di ci gëstu di ci faj di ci dimbale doomu aadama yi ci seen soxla yi ci loolu mooy seen liggéey si lañ nekk fii ci dakaar ñu ngi fi bëgg yàgg Euh, jërëjëf euh, Cheikh Mahdou Mahamadou Mbaye euh, tey nag dégg nañ ni ku ku yàlla may nga ci wàllu lasaar lasaar muy faju baatin goo xam ne yàlla nekkul n'importe kii la koy may waaye yow nag nit ñi nee nañ may yàlla may na ko baax a baax a baax baax tey nag dafa am loo xam ne tey lu sonal askan wi la mooy surtout ndaw yi mooy ndaw yi dañuy toll ci am waaye mbir yi day dëgër lool lool lool lool day mel dañuy am ay gàllankoor wala wàllu cat leen téye ci loolu lañ bëgg nga leer ñu sëñ bi waaw alhamdulilah lii di mbiru lasaraar yàlla may nañu ci ñu ngi ci sant yàlla bu baax di wax ne fa amma bi ni'mati rabbika fa hadis yàlla bu la joxee xéewal da ko ci sant ñu ngi ciy sant yàlla bu baax muy loo xam ne dañ ko donn waaye bañ ko donnee itam yemuñ ci ndoneel googu waaye dañoo gëstu ci lasaraar dañ ko gëstu jàng ko ba xam ci lu bari rawatina ilmul xawaatim kon li di lasrar may guñ ci mëna am rek ñing koy santé yalla di di si santé itam ci waajur yi li nga laaj muy walu galankor yi waral nit ñi di teju seen walu wërsëg wala ñi yaakar muy tas lool li koy waral euh, doomu adama mom la yalla bindé mu nekk nit ko xamné yalla def ka bind boole ka ak ay galankor galankor yoyu yalla boole ko nak mom moy mission ci ko suuf mom la wara xex ak ba mu deñ kenn ñàkkut wërsëg ñëpp am nañ wërsëg waaye lan mooy tax ñii am wërsëg bëri le ko ñii tuuti le ko loolu gàllankoor la su ma la si doon jox exemple dama lay wax na la garab boo xam ne chaque jour ñi arrosé ko muntu yem ak garab boo xam ne bañ ko jëmbatee kenn arrosé wul ko képp koo xam ne da ngay defer sa yaram di deferu yàlla mun na laa dimbale sa wërsëg bu fekkoon lu tuuti la sax yàlla ubbil la ko ba mu bëri loolu moom nag ñi ngi siy yëngu bu baax ci wàllu ubbeeku yàlla may nañu si yoo xam ne bu nit ñëwee ñin di jëflanteeg ñin nañu ubbeeku lañ soxla duñ dem rek dugg ak moom ci defaral ko loo xam ne lu koy ubbi la dañuy xool lan moo ko gàllankoor lan moo tëj war wërsëgam ba tax mantu am dara loolu la ñuy xam ba pare dindi loolu ci moom buñ dindee loolu ci moom ba pere door kaa defal loo xam ne lu koy ubbi la nga xam ne bu doon am junne dana dem di am ba cinquante mille nit ku nekk ak fi sa wërsëg toll waaye ñun daal ñu ngi dimbale doomu aadama yi ci dindil leen bépp gàllankoor boo xam ne dana dox seen diggante ak am-am. donc ñu ngi siy jëflanteeg jaam yàlla yi bu baax a baax. macha allah bu ñu la déggee leeral bu baax ci mbirum gàllankoor n'est-ce ci ndaw goo xam ne dafa bëgg a uday ut mu dëgër lool lool lool kooku moom bu ñëwee Cheikh Cheikh Mouhamadou Mbaye macha allah incha allah dina ci am euh, lu ko lu ko neex bu baax a a baax. Euh, ñu dem ci jëriñam tomb bi mooy euh, ci mbirub ci mbirub liggéey ndax fu mu ne nii dañu nekk ci société boo xam ne xëccoo gi dafa bari lool lool lool lool nit ñi dañoo dem ba seen mbir wékkatuñ ko ci yàlla léegi dañuy sañante ay yu bon bon bon di liggéeyante seen biir waaw mbirub nit koo xam ne dañ ko liggéey tey Euh, ba liggéey bi jàpp ko gàllankoor ko ci àddunaam kooku sëñ bi looy def moom. xam nga euh, mooy lu ma doon wax sax ne gàllankooru doomu aadama xam nga doomu aadama yàlla def ñu bind boole ñeeg ay nit ci kaw suuf boole ñeeg ay rab ci kaw suuf waaye doomu aadama ci boppam dana dem sax ba def moroomu doomu aadamaam loo xam ne sax mooy doon gàllankooram ci wàllu am-amam moo koy yàqal ci wàllu palaasu liggéeyam mooy tax bu demee ci biroom du mën a liggéey yaramam di tàng wala xelam sax dootut fa nekk euh, Cheikh Mohamed euh, est-ce que xam nga ne liggéey daañ ko def doomu aadama ba mu dof daañ liggéey doomu aadama waxuma mu am sax waaye daañ ko liggéey ba xelam sax dootul nekk ci liggéey pour am te gis nga métier bi ñu nekk muy mbirum lasaraar dafa bëri gàllankoor yoo xam ne nit ñaa ngi koy am gis nga gàllankoor yi doomu aadama yi di toggoo duhut ne liggéeyante bi kese la nit des fois dana jog dem ci sëriñ pour mu ñaanal ko mu ubbeeku mu jëlee fa tëju li koy waral mooy lan mooy nga feebar dem ci médecin pour mu faj la nga fekk yow médecin bi moo la gën a feebar te xamul benn médicament bu mu la jox te lii di ilmu lasraar wàllu xawaatim boo ko xamut bëgg see jëriñ doomu aadama loraange gi nga siy jox doomu aadama yi mooy ëpp doole njëriñ li nga leen di jox ndax mbiru xawaatim dafa mel ni médecin boo xam ne dafay faj te xàmmiwut garab xamul benn dosage pikir bu mu jot rek jël ko pikir ko doomu aadama yi li muy rey ci doomu aadama mooy ëpp lu muy faj ci doomu aadama mbirum lasaraar noonu la mel dafa nekk xam-xam boo xam ne danga war a jàng xam-xam bi ba maîtriser ko nga xam ne nit ku nekk da nga xam biddiwam xam li ko mën a jëriñ nga jaar foofu pour jëriñ ko Euh, bu bu fekkee ne problème yi nit ñi am sëriñ yi teg leen ko wala ñi nga xam ne dañoo woote woon ne ay sëriñ lañ te duwuñ ay sëriñ xamuñ dara ci mbiru lasaraar ñooñu teg lañ ko yooyu am na yeneen problème yoo xam ne itam nit ñi amaat nañ ko mooy lan mooy nit koo xam ne dafay liggéey ci benn place keneen bëgg place boobu dem liggéey ko ba yàqal ko foofu euh, fekkee ne ay dossier la waroon a yore ñi jaxase ay xelam ba dootul mën a maîtriser dossier yooyu di def ay toj-toj rek bu yàggee société boobu daf koy dàq loolu nag lenn rek moo ci mën a musal nit ki mooy nga am kaaraange goo xam ne képp koo xam ne jóg na pour bëgg laa yàq moom mooy yàqu waaye yow doo yàqu te ñun kaaraange yàlla may nañu ci loo xam ne euh, am na sax yoo xam ne duhut n'importe kii rek lañ koy defal parce que doomu aadama yàlla daf ko bindee en général ñi koy gën a xeex en général ñi koy jege la ñuy doon. te am na si yenn kaaraange yoo xam ne bu ko nit ki amee ku repp rek ku koo xam ne yàlla nammut ci yow yiw rek moo lay xeex xam nga yooyu bu ko nit ki amee ay mbokkam di ko xeex musiba naaru laay lu nekk dana am waaye nag li ma mën a wax rek Mohamed mooy kaaraange yàlla may nañu ci loo xam ne ak luy dindi gàllankoor loo xam ne képp ku ko am ku repp rek moo lay nar a xeex koo xam ne yàlla nammut ci yow yiw rek moo lay nar a xeex te bépp gàllankoor bu mu fekk ci doomu aadama dana ko dindi moo xam liggéey la moo xam cet la moo xam rab la moo xam lu mu mëntu doo dana ko dindi ba mu set wecc ci yaramam ba moom ci boppam dana yëg ne man mi am na lu nekkoon ci man dëñ na sama yaram daf daan diis dama daan tayal du ma mën a liggéey sama xel mel ni luy naax yooyu yëpp dafay dëñ parce que gàllankooru doomu aadama bu dëñee rek dana xam ne man mi am na lu nekkoon ci man dëñ na

waaw dañ def constat boo xam ne am na surtout ay jeunes artistes yoo xam ne euh, ñu ngi yëngu ci wàllu aar mais boobu ba léegi euh, dañuy am jafe-jafe pour nit ñi daal leen xam koo xam ne tamit day am day liggéey di jaay am jafe-jafe nit ñi di ko fréquenter waaw ñooñu tey euh, ban solution nga am ci ñoom sëñ bi. gis nga bayra lu baax la ci doomu aadama gannaaw bu doomu aadama bi amee kaaraange dafa war a am ubbeeku am bayra ndax nit ñi buñ la bëggul duñ la defal. te bayra alhamdulillah ñu ngi ci sant yàlla bu baax yàlla may nañu ci ni ñoo xam ne kenn xamut leen wala kenn xamut leen woon avant ñi jëflanteeg ñoom ci wàllu bayra ñi dem bañ leen di dégg fu nekk ci àdduna bi euh, bayra yàlla dénk nañu ci loo xam ne garab sax buñ ko ko takkalee nit ñi duñ jog foofu dañ fay dem rek di fa toog lu baax la ci doomu aadama am nañ ci nag loo xam ne pour sang la sangat la am nañ ci itam loo xam ne pour takk la ndax am na ñoo xam ne maneewuñ takk sang lañ man sangu lañ man am na ñoo xam ne mëneewuñ sangu takk lañ man waaye bayra yàlla dénk nañu ci loo xam ne képp koo xam ne bayraal la tax a jóg euh, dañ la defaral bayra boo xam ne te du doon bayra boo xam ne dafay doon bayra bukki bayra bu ànd ak ubbeeku lay doon ak kaaraange. waa sëñ bi lan mooy bayra bukki. xam nga foo jaar rek ñi lay coowoo loolu loolu coow la loolu du bayra loolu coow la bayra mooy ku la gis weg la jotaay boo jógee day mel ni lu tas soo doon wax ba pere boo jógee ci jotaay ba dem sax day mel ni jotaay bi dafa tas mbooloo moo dëgmal ñëpp dañuy bàyyi seen lépp taxaw di la déglu dañ lay jox cër weg la nit dana la jox sax alalam fekk mbëggeel gum am ci yow ak cofeel gum am ci yow moo tax mu jogloo ko loolu mooy bayra waaye foo jaar rek nit ñi di la yoox loolu coow la loolu du bayra coow la te en général mën na gàllankoor doomu aadama bi euh, ñun bayra bépp bayra bu ñuy defar dafay ànd ak luy dindiwaale gàllankooru doomu aadama bi waaye dafa lay protéger si lépp loo xam ne lu lay yàqal la dootul la mën a yàqal am na ku ñëw ci mbooloo mi mbooloo moo dem daañ la ràññee ci loo dugg rek doo fa nekk koo xam ne kenn du la gis dañ la gis bu baax waaye itam da ngay amaale kaaraange ci xoli doomu aadama yi ngay nekk ñun loolu yàlla ngi si dimbale ñu ngi siy ak doomu aadama yi di leen ci defaral ay artistes ak ñoo xam ne ci géewu politique bi lañ nekk ak ñeneen parce que doomu aadama rek moom la bayra baax ci moom mooy moo mu moo xam nag ci looy mën a yëngatu rek nga am bayra baax na ci yow parce que bayra duhut lu ko nit ñi yaakaar mooy nga siiw ni ñëpp xam la ci àdduna bi loolu bokk na ci waaye li gën a tax a jóg bayra dëgg-dëgg bayra dëgg-dëgg dafay ànd ak ubbeeku bayra dëgg-dëgg dafay ànd ak nit ñi bëgg la bayra dëgg-dëgg du ànd ak na te ñin yàlla ngi si dimbale ñu ngi siy defaral doomu aadama yi lu am njëriñ. macha allah sang bi euh, kontaan nañu bu baax a baax ci leeral boobu nga leeral ci wàllub euh, bayre euh, kon donc lu ma leen koy waxee rek moom c'est une solution aussi suñu mbokk rappeurs yi ku ci mel ni ñoom ñoom ñoom Def Fresh ñoom ñoom Gézy waa nga xam ne boobu léegi ñu ngi bëgg a fël bu baax a baax a baax comme la solution est là ñëw leen doxantu nànk fay 100 francs rek wala 200 francs ñëw ba Thialé Azur fekk si fi sëñ bi mu daal leen ni saafaraale seen jàngoro waaw sëñ bi bu weesoo tam ñu ngi ñëw tam ci wàllu wàll wàllu tukki yi fu mu nii am ndaw yi dañu bëgg jël lool yoonu tukki te am jafe lool bu ñu demee ci ambassade yi mu dëgër lool lool lool ak ñoo xam tamit ngi bëgg ay examen may ay bac ay licence mu leen di jafe lool lool lool lool lool waa tey loolu tey bonne solution ci indi la euh, askan bi alhamdulilah maa ngi njëkkee ci wàllu examen yi nga wax noonu balaa ma koy fàtte yàlla ngi si dimbale ñi ngi sant yàlla caaroy asir gii ñi nekk xëy na ñu bëri buñ ma déggee daañ xam lii may wax yàlla ngi si dimbale ci wàllu examen ba nga xam ne ñu ngi siy jëflanteeg ñoo xam ne am na ñoo xam ne dañ koy def deux fois sax duñ ko am ba seen xel dafay nekk ci bàyyi ñu ngi siy dimbalanteeg ñoom ñi am ndax examen concours la rek boo xam ne ñëpp a ko soxla lu ñëpp soxla nag loxoy neen du fa dem da nga mën a jàng nekk intellectuel xam li maîtriser bu baax say leçon ak say lépp dem ba yegg mu mel ni xamoo dara kon donc dafa am looy ngàndaayoo kon donc ñun loolu wàllu examen. daanaka bu fekkoon ne micro territoire dafa mënoon a am ñi nga xam ne xam nañ ma ci loolu may jëflanteeg ñoom ci wàllu examen konoon ñu si bëree bëree bëri daañ la wax man ba ma demee ci moom ci laa am kon donc loolu dañ koy wax nag ngir sant yàlla waxuñ ko ngir leneen wàllu këyit jafe-jafe këyit moo xam ku bëgg tukki la wala ku nekk bitim réew bëgg këyit gis nga mbiru papier duhut da ngay jóg rek dem uti ko ndax dafa nekk loo xam ne tey si tey bureau du passeport rek boo fa demoon di ut passeport da nga yaakaar ne Sénégal yëpp bëgg tukki lu mel noonu nag nga jóg yow di ci dem nga bëgg see demee loxoy kese gis nga lépp loo xam ne loxoy kese nga ci duggee loxoy kese nga see génnee donc mbiru tukki yàlla dimbale na ci dimbale nañu si képp koo xam ne balaa ngay déposer say papier yëg nañ la ñi jëflanteeg yow ba pare boo déposé papier boobu duñ ko réciter papier boobu duñ ko récité moo xam fu ambassade boo ko mën a dugal mais kenn du ko récité loolu yàlla ñu siy dimbale ñi nekk biir Sénégal ak ñi nekk bitim réew sànq nii rek ba ngay ñëw sànq am na benn jigéen boo xam ne fi la bàyyi passeport am ndax ñin bu fekkee nit ki dafa bëgg déposé papier am bi la ñuy jël liggéey si luñ si liggéey ñaari fan bu fekkee dafa nekk foo xam ne mënuñee jot si passeport bi am nañ yoon boo xam ne ci la ñuy liggéeyal moom waaye dañ ko koy liggéeyal balaa mu koy déposer loolu mooy sens bi fekkee na nag koo xam ne dafa déposé ba pere la door a ñëw nañu ñaanal ñu yàlla ci wàllu papier yu ñu déposé buñ ko retiré buñ ko récité su boobaa am na beneen yoon bu ñuy jaar ak kooku ba papier boobu kenn du ko récité moo xam ñi nekk bitim réew bëgg ay nationalité la wala leneen ñi ngi siy jëflanteeg ñoom bu baax a baax baax parce que ñin euh, su ma eboone waa diaspora bi la ñuy gën di jëflanteeg waa diaspora bi yi nga xam ne ñoom dañoo dañoo sonn ndax boo génnee da ngay sonn say mbokk yëpp yaakaar la amoo ay papier euh, sa am-am du demee noonu te ñu yaakaar na yaa ngi yor lu ne euh, ñooñu dañoo laaj dimbalante ak ñoom donc ñu ngi leen di dimbale bu baax ci wàllu papier euh, yàllaa ngi ci defal tawféex ñi ci am ay résultats yu baax a baax a baax ci ci jëflante bi ñuy jëflante ak ñoom donc alhamdulilahi rabbil alamin macha allah ah loolu moom xam naa ne dama naan alhamdulilah sax sama jëm bopp bi ndax man moom 15000 euh, fois déposé naa ko ambassade États-Unis di ñaan visa am jafe-jafe lool lool lool lool lool xam naa solution moom mu ngi nii incha allah dem damay dem damay dem la solution est là euh, kon bi ñu lay sant bu baax euh, euh, papier nañ dernière partie bi moy bi lo jamono yi dafa def tendance lol lol lol lol trop sey yu bari bu ñu durée deux ans trois ans maximum sey di tass li waral kuupul yi di gaaw a tas baax bari na lool euh, gis nga bu njëkk dafa am lu bëree bëree bëri loo xam ne mag ñi dañ ko nangu woon te jamono bi soo ko waxee dangay dégg koo xam ne xamul dara na la lool bidaa la bidaa am na waaye am na loo xam ne du bidaa cosaan la léegi nag couple yi dafa bari lu ci dugg ba pare fekk couple yi amuñ kaaraange da ngay gis koo xam ne sax daf naan rab moomu dugg sama digganteeg sama borom kër dama bëgg ku ma ko fajal te fekk moom ci boppam mooy rab moom ci boppam mooy rabu boppam parce que nit ki doomu aadama dafa am nu ko yàlla bindee temps bu génnee ci cadre bi ko yàlla bindee dootul nekk nit rab la euh, wàllu colka gi wàllu bopp yi ak génn heure bu la neex di dajeek ay rab te rab moom ku nekk xam na ko bu la yàqalut sa alal yàqal la sa digganteeg sa waay wala mu yàqal la sa wér-gi-yaram te couple yu si bëri lii moo ko yàq rab lay doon walla liggéeyante wala couple bi si boppam du am liggéey du am rab waaye dafa amul base boo xam ne ñaan yàlla def see amut da ngay dégg ñi ne euh, nga gis couple boo xam ne takkante nañ ba sëy nga gis doo gis dara loo xam ne ci wàllu lislaam def nañ ko te pourtant yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muur na doomam bu jigéen muy faatima def ne bu ngeen ko yóbboo yóbbul leen ko kër jëkkëram mais bu ngeen demee bu leen def dara xaar leen ma ba ma ñëw ba mu ñëwee na may leen ma ndox ñi may ko ndox mu jàng li muy jàng tëfli si raayal ko ko ci boppam ak ay weenam ak yëpp na mayaat leen ma ndox Seydina Aliyu mu ne ma xam ne man la ñuy wax ma tànk ndox may ko mu defal ma comme li mu defal faatima loolu kaaraange lay doon ci liggéey ci ci sëy te nit képp bépp doomu aadama boo xam ne amoo kaaraange maa la ko wax Mohamed benn doo gudd fan wa illaa soo amoon alal dana yàqu wa illaa sa mujj du neex parce que kaaraange rek moo la mën a dimbale ci yàqu-yàqu àdduna bi te gis nga danga dégg ñu ne àdduna léegi dafa yàqu nangam fekk àdduna yàquwut nit ñi ñoo changé nit ñi ñoo nangootu te def yu bëree bëri te dafa am loo xam ne ñin sénégalais sin cosaan la ba pare diina lislaam ñëw sin mag ñu baax ñi indil ñi lépp Sénégal am na lépp waaye gëm bi ñu war a gëm mbiru alquran dikk di si ñaan yàlla moo des te alquran mooy solution bi nga xam ne moo mën a régler problème couple yi am problème moo mën a régler nit ki nga xam ne dafa am jafe-jafe moo xam góor la boo xam ne liggéey daf ko jafe wala muy jëfandikoo yoo xam ne baaxul ci santé doomu aadama alquran mooy solution bi temps buñ ko fi bàyyee nag bëgg dem uti beneen solution bu dul alquran rek problème bi mooy gën a yokk problème bi mooy gën a yokk dafay mel ni yow mu doon euh, fay safara nga sotti si essence tàkk-tàkk bi day gën a yokk rek te alquran mooy solution bi ndax moom la ñuy yonent bi sallallahu alayhi wasallam bàyyee mooy sin doneel ñin macha allah sëriñ bi waaw ah, loolu leer bi tamit waaye tam ba léegi tamit euh, ndax sëy daa yaa euh, ba léegi tamit ñu ngi dugg tam ci wàllu sëy euh, ndax loo xam ne actualité jamono bi muy soxna Aminata Ka boo xam ne moom la ñu faat keroog rek yàggul dara dara dara fële ca Malika ñu ne jëkkëram moo ko faat waaye loolu moom sëñ bi loolu lu koy waral tey nit bëggante nit nest ñu seq amour tendresse jamono ñëw ñiy dóorante di xaañante di màttante ba rey du ci dugg waaw loolu moo koy waral sëñ bi. mooy baasu Euh, maanaam problème yàlla dafa wax ci alquran ne fitna ci boppam moo gën a métti sax rey da nga gis couple boo xam ne fitna bi ñuy dund ci biir kër gi mooy dem ba yegg ci rayante rayante boobu duñ doon dañuy xëy rek rayante problème lay doon boo xam ne dañ koy dund mu diire lu yàgg kenn ku nekk am loo jàppal sa moroom te tey danga gis couple boo xam ne jëkkër la ak jabar ñi nekk seen appartement papa nekkut fi yaay nekkut fi tey si tey boo dëkkee sa papa wala sa yaay problème am sa papa mën nga ko xool rus ko wala mu taxaw intervenir mais couple yoo xam ne problème tey bu amee sax nga tëjoog sa jabar si si sa biir apartement sax boo koy rey balaa balaa balaa ngay tijji dafay dee ba pare nga door a tijji bu nit ñi ñëwee sax doo leen nangoo tijjil loolu mooy dëkkuwaay yi nga xam ne nit ñi dañ ko séparé woo da nga gis ku góor koo xam ne sax moom moo koy bëgg moom mooy bëgg takk jabar nekk moom kese ak jabaram nga gis ku jigéen koo xam ne moom mooy commandé loolu début bi day mel ni lu neex waaye balaa ngay xam muskila bi muy indi muy jafe-jafe bi muy indi dëgg-dëgg mooy problème am fekk ñoom ñaar ñi ngi ci seen biir kër mun nañu reyante te duñ am kenn ku leen àtte te bu fekkoon ne lu alquran wax mu ngi ci ñin konoon yu bari mën naa mën a ñàkk ndax doomu aadama yàlla dafa bind doomu aadama wàccee ko ci kaw suuf def ko góor ak jigéen donc mënuñee ñàkk a takkante waaye na mbëggeel am ak yërmande nit ki soo ko bëggee danga ko mën a muñal lu bëree bëri bëri te bu la defalee fukki bànneex benn jour jot mu defal la loo xam ne lu la naqari la donc da nga ko war a muñ loolu ngir ne am na fukki fan yoo xam ne passé na mu ngi la doon defal lu la neex donc nag tey si tey éducation bi base bi. duhul ne sey bi fay xey rek am problème xam nga base bi fan la moy mal éducation la da ngay gis ko xamne li tax ñi may ko jabar duhul dara luñ ko nawé tax ñi may ko jabar wala nga gis gorgo kamne, xamne li tax mu dugg ci ben jigen duhul ben recherche bu mu def wala jikko bu mu gis ci mom mu neex ko tax mu dugg ci donc li al li yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxone na nga ndax ñet na ngir alalam wala nga tak ko ngir taram wala nga takku ko ngir askanam wala nga takku ko ngir dinam mu borom dinabi, bi mang la kay digal boko defut nak taribat ya kon donc euh, bu fekke ne tiofel amna education islam am mbeugel am am ay wajur yu nek ci gannaaw ñi len di xol ci bir sey bi su boba problem yu bari du am waye da ngay gis couple bo xamne ne bi ak jabar bi kessela dañ ci genn ñep ñom ñoko ci sax nak parce que da dégg ku jigéen ki na euh, gore yi léegi ñooy tas sëy yi wala njëkke yi wala nangam maanaam sëy boo xam ne yow jëkkër ak jabar rek la conserné bu problème amee kan mooy régler kenn du régler moo tax en général boo xoolee divorce yi ëpp tirbinal la ñuy divorcer divorce yëpp te bu njëkk danga daan nekk ak jigéen ba mu yàgg mënatoo nekk ak moom ndax jikkoom ngeen taqale ko ci jàmm ak salaam kenn ku nekk dem waaye sëy bu sëy sëy Sénégal yi tey boo xoolee da nga gis koo xam ne sax sëyam tas day am mu divorcé ba pare door a dem uti papier de mariage ndax daf ko bëgg yóbbu ci tribunal ndax bu demee ci imam bi tey mu àtte leen ne lii la du ko doy kon donc problème yi li ko gën a gën a waral mooy dañ cee rocce lislaam bëgg kaa régleel seen bopp su boobaa nag dafay mel ni lu ma doon wax benn waaye rek ay peine de mort ak ay yenn yëpp solution bi mooy lenn li lislaam waxoon buñ ci tegoon sin tànk konoon kenn dootul rey konoon kenn dootul indi fitna ndax lislaam dafa ñëw pour solution fekkoon ne ku rey ñi rey la kenn ku nekk loo def rek lislaam am na sanction bu mu la teg na nañ ko ko teg mais fekkoon ne loolu moo am nag konoon solution dafay am waaye dañoo bëgg nekk ay jullit ba pare di dund dund ay nasaraan te loolu mëntu nekk Euh, macha allah sëñ bi ñu ngi lay sant euh, di di profité ci occasion di jaale tamit euh, soxna Aminata Ka di ko jaale waa këram njaboot Malika bi yëpp yëpp yëpp yëpp di ko ñaanal yàlla yërëm ko xaaree ko it ci addu àdduna yi Firdawsi rëb ci remarque ci lu ma def rek ci ci wax ci wax gu mu wax mooy remarque bu ma def rek ci waxam mooy remarque bu ma def fu mu nekk nii xale jigéen ñi ko ci ne dama lay takk rek lu mu lay njëkk laaj mooy ndax sa yaay mi ngi doon ndax sa papa ndax boo ma takkee da nga may seen kër famille wala seen wala sama appartement laa jël tey problème yu appartement yi wéet yàgg sa soxna ci appartement tey bu leen xulóowee kan moo leen di arrangé ah kon loolu conseil bi ma jox sama mbokk xale jigéen euh, yi ak sama mag yu jigéen ñi mooy toog leen seen kër goro yi ndax euh, tey boo leen am na lu bëri jigéen da koy manqué euh, ku sëy ba jàll ci sëy kooku rek ku mën a mottali kon maa ngi leen di ñaan ngeen toog seen sëy yi gérer seen jëkkër yi fonk seen goro yi di leen toggal di leen paaseel di leen fóotal asalaamaaleykum wa rahmatullah ah, sëñ bi kon looy tàggatoo Euh, di ñaanal jàmm waa Sénégal yëpp comme waxtu wi dab nañu ñu ngi ñaanal jàmm waa Sénégal di ñaanal jàmmu président bi ndax euh, boo nekkee ci biir réew. chaque jours war nga xëy ñaanal sa président yàlla jàmmal ko ndax dafa mel ni ku dugg ci gaal bul ñaan yàlla mucc waaye da ngay ñaan yàlla gaal gi mucc ndax bu gaal gi muccee yow da nga muccaale yàlla na yàlla defal Sénégal jàmm rawatina euh, sin mbokk yi nga xam ne génn nañ nekk si bitim réew bi ñu ngi nuyu waa alamul islamiya bi yëpp di nuyu mbooleem jullit fu waay mën a nekk di ñu déglu ñu ngi lay nuyu di ñaanal yàlla ñëpp di wax ne آه، وما أريد إلا الإصلاح ما استطعتم وما التوفيق إلا بالله عليه توكلت والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته